actualité bi nga xamante ne ni fi mu toll nii réew mi yëngu na loolu la ñu mën a wax ñu seetlu ne nag fan yi dinañ ko dóoree ak meeting yi nga xamante ne nii euh, mi ngi commencé di door waa APR benn Bokk Yaakaar ak ñi nga xamante ne ni ñoo di parti bu Yewwi Askan Wi rawatina waa PASTEF ñoom gis nañu fi mu toll nii depuis que Ousmane Sonko dem fële nga xamante ne ni moo di Kër Massar sa gox gis nañ mobilisation bi nga xamante ne ni bu takku bi ñu fa amaloon ginnaaw bi loolu ki nga xamante Ahmadou Ba premier ministre moom tamit euh, daal di def euh, meeting moom it ca Pikine mu mel ni fi mu nii affaire bi dafa nekk loo xamante ni nii ay fayantoo lay gën lay gën a nduru Omar ñu mhm. bàyyi la nga sànni euh, maa jigéen lu am solo ngay wax mhm. li nga wax nii bu doon ci démocratie bu normal li ñu xamee woon politique ni lay demee maanaam ñu naan pari de la mobilisation kan moo ëpp mbooloo ci diggante opposition ak pouvoir mhm. loolu dafa yàgg ci politique parce que boo xoolee tey ji dund nañ ko Abdou juuf ak Laye Wade ba ni woon sax Ablaye Wade amul xaalis mars ba la la doon def moom ca la doon wooye mbooloom Ablaye Abdou Diouf meetingee meeting gu rëy Ablaye Wade dajale mbooloo mi dem bi ñëwee ba Macky Sall ñëw ñu gis Ablaye Wade di woote ci VDN bi Ablaye la Macky Sall woote yof fii maanaam mu doon lu normal ci démocratie boo xam ne dañ ci doon nattee nitu politique yi ak seen dayo mais aussi ak seen légitimité est-ce que askan wi jox na leen bopp am déet tey ñu dem ba tollu ci niveau bi loolu doon information mooy dellu ginnaaw gi ñu dellu ginnaaw ci wàllu politique. démocratie mais aussi tamit euh, changement bi am maanaam njëmbat li moo féete kaw lu tax ma ni la changement bi am mooy parti au pouvoir moo daan woote ci mobilisation di diriger maanaam opposition bi toll ci déggoo fee ma ne la Abdou Diouf ñëw woote ci meeting Abdoulaye Wade def lii di. marché bleue gars yi naan amul mbooloo amul xaalis mais léegi mbir mi dafa wëlbatiku opposition bi ñooy def comme sonk ak Kër Massar loolu dama la lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole. kon tey jii dafa Sonko dafa mel ni mooy diriger maanaam moom dafa mel ni moo nekk au ñoom Macky Sall nekk ci opposition ndaxte li mu def moom ci la ñuy topp maanaam moom jéego bu mu teg rek dañuy xool ni Sonko def na ko ñun nan ko def pour wan ko ni moom du dara alors que ñoom ñoo waroon di def. Sonko di ci topp ñu naan amul xaalis amul mbooloo. waa loolu problème est jamono jii nii. Euh, ci jamono ji ñu toll nii est-ce que heure meeting la tamit parce que bu ñu demee ba ñu ne deux mille vingt quatre te gis nañ ni ni euh, même élection yi nga xamante ne nii war nañ ko dëgmal sax jàppaguñu date bi te bu ñu seetloo auparavant da nga daan gis heure bii nii fekk jàpp nañ date ci bu fekkee ne gars yi ku nekk di waajal sa bopp fi ndool nii bu ñu jógee di jëm meeting est-ce que c'est normal ci waxtu. xam ne meeting dafa bokk ci loo xam ne day animer parti politique parce que parti politique rek du am parti rek du di daje. Mm-hmm. di wax mais parti politique des fois da daje da ngay bëgg aussi tamit def propagande dajale say mbooloo. mais aussi campagne lay gën a campagne déguisée la mais da am lu ñu ci yóbbu te loolu depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci maanaam depuis 2012 ba léegi Sénégal Macky Sall liggéeyul man loolu laa gëm. Ah dama mës a waxtaan ak benn kilifa bi ñu wax Ludovic Rogner. Hmm. Seydou Lamine Niass daan na ko invité dama mës a daje ak moom ma laaj ko. mën hmm. ma ñaar moo am ci nguuru président Macky Sall soit mënul liggéey wala bëggul liggéey. mais li mu fi jot a def mais deux mille mille douze ba léegi. li mu fi def fi lu fi kenn deful. Mm-hmm. mooy ñëw ñu jox la àllu réew mi nga tabax bi li nga fi war a tabax mi ngi mel ne ku ñu jox dépasse na la demal nduggi toggal ñu boo toggul looy def. Mm-hmm. waroo xaar sa kulo la tàccu parce que dal la jox ñi la jox dépasse bi ñoo la gën parce que ñoo uti woon. Mm-hmm. kon loolu muy def def ko ci poosam parce que avant muy doon dara deful askan wi dara. kon tey ji lépp lu muy def tey ji yaay dajale sa dërëm ma dajal sama dërëm keneen dajalewaat keneen dajal pour président Macky war ko mais lu tax ma ne la ci politique lan nekk 2012 ba léegi. mbiri Karim Wade waxi politique rek lan doon wax mbiri Khalifa Sall waxi politique rek lan doon wax tey jii ñi ngi ci mbiri Sonko Macky Sall ban temps la jox liggéey pour man temps bi mu jox politique bu ko joxoon liggéey Sénégal weesu na fii. maanaam ah, ci côté mm. nga baal ma mm-hmm. parce que Macky sàll campagne euh, euh, li nga xamante ne ni moom lay def day dem ci région yi su ko defee dig fa ay dige kon kooku jàpp naa ni est-ce que nekkul du dafay am lu muy wàcc wala lu mu nar moo tax euh, doxu ñaxtu yooyu noonu nga xam ne mu ngi koy amal d'ailleurs demoon na sax li nga xamante ni moo di ca Ceskaay ki di Idrissa Seck ñuy wax seen ànd bi nga xamante ni moo di mburoog soow mm. def na fa ay dikk mu teeru ko ba ñu ne mobiliser nañu ay nit yu takkoo takkoo takkoo takkoo est-ce que tamit loolu nekkul loo xamante ni liggéey la. pour man RTS laa ko seetaan. Mhm. xam ne lépp loo xam ne rek dañ koy jeex dafa fekk nekku ci maanaam euh, seentu asamaan jërte buuxante. Mhm. démb RTS laa seetaan mais bi ma gisee. Mhm. li may wax ni ñoom moo doog ñoom topp ñoom ma ko gën a xam. plan bi ñu doon jëlee président Macky mooy wane ne mbooloo mi desoon na. kenn ko jël ci kaw ko kenn du ko jël ci ginnaaw day ñëw ci kanam rek. boo ko comparé ak la xewoon Kër Massar nga xam ne ñaari mbooloo yi duñ benn xam ne moo wax la benn affaire ci nga génn yooyu mi génn naan ay tournée économique tey ji dafa waroon nekk à l'heure du bilan parce que tournée yi njëkkewul tey Dakar defoon wër réew mi yëpp fu ne mu digg fa ne dina fa def ay chantier tey ji dafa waroon toll ci nii maa ngi dem inauguré ji wala ma def bilan wala bokk la ma leen diggoon fële mais tey ji dafa ñëwaat ba en deux mille vingt benn at dese ko ci mandat wala onze mu ñëw di leen digaat foofu nag la askan wi war a nitee te xam ba nit moo jàkkaarloo ak ñoom parce que ku la joxul añ joxul la ndekki bu la diggee reer waru ko gëm c'est-à-dire que Macky Sall dafa nekk ci loo xam ne tey jii man tournée yi dama jàpp ne démb dama xool ba caag ma ne Macky Sall ci tournée tàggatoo la ne parce que fekk at dangay dem pour man day wëlbati wër pour tàggu nit ñi ne la man de sama nguur jeex na léegi maa ngi dem gaay mi waxuñu loolu bari na ci ñoom ñu koy nax président Macky Sall ñoo xam ne waxuñu ko dëgg waxuñu ko dëgg parce que bu ñu ko doon wax dëgg dañ koy gëmal ni benn mandat moo la dese. xam ne ñu bari dana man dama toog di xalaat ma ni ñu nee neen Macky Sall Sonko lay concurrence man dama jàpp ni Amadou Ba daa def Pikine Macky Sall def Thiès Macky Sall Amadou Ba lay wujjeel maanaam Amadou Ba dem na Pikine yëkkati loxoom Amadou Ba dem na Pikine yëkkati loxoom ne Macky na dem ba deux mille na weesu sax deux mille vingt-quatre wax ju ne mu wax ko fa ñu teg ci ay fan Macky Sall dem cees tey jii bu doon ni tey day suul meeting parce que la xew ca Kër masaar banlieue la xew lu tax Macky ñooy faje ko Pikine yow ñu dumaale Kër masaar ngay fayoo ji cees maanaam Kër Massar loolu la dumaa ñëpp gis ni yow mii si Paris moom tamit hmm. conseil des ministres décentralisé la non non balaa mu ko doon def décentralisé daf waroon moom li mu njëkkoon a def wër réew mi mu xayma ko parce que étape boo koy jéggi di dem ci beneen da ngay évaluer li nga jot a def ba pare moom li mu njëkkoon a diggee fan la ci toll balaa am ñuy diggaat li neen nit ñi di ko def tey ji Thiès en 2023 nga defar biir terre bi nekk ci BRT nga nekk chantier bu nekk nga teg ci rek ba ci hôpital euh, kii nu mu tudd stade Abdoulaye Wade loolu lépp président Macky Sall ko ci réew mi ñu dem ba 2023 mu taxaw Thiès di leen dig chemin defar fer. <laughs> na raay bi dina dawaat. mais li dawal terre bi. Uh-huh. maanaam tey jii benn junni milliard boo def ci uh-huh. terre bi gëm naa ni genn wàll gi wala sax lu ko yées yóbbu woon na raay bi ba muy dox diggante ndakaaru ak Mali. Uh-huh. digg uh, wala bokk uh, Thiès ak ak Mali. beneen bi si topp. mun na dem ba Tamba mun na dem ba Ndar parce que ñun ñu daan dem Ndar. mais boo daan yeewu fajar gi mais raay bi la doon yee. te yaa raay lan lay jariñ ci réew. mais day soqali économie. économie mooy lan fépp foo xam ne raay dafay jaar dëkk yi muy jaar dañuy dund. mais aussi tamit raay mooy moyen de transport boo xam ne moo sécurité ci àddina mais yooyu yëpp tey jii nguuru Macky Sall dafa ñëw rey ko li yow nag loo rey 2012 ba tey jii nga ñëw 2023 ne dama koy dundalaat xanaa yaa yàlla